CIA bi salon international de l' artisanat à Dakar muy la deuxième édition yàlla def tey bon suñu ministre yi nga xamante mooy doomu Bawol Lion di Bawol euh, bon xëy initié ko mu nekk la deuxième fois je pense que dañ ci sawar a wax parce que on était bas le 5 euh, ci journée ouverture bi nga xam ne son excellence monsieur le président moo ko ubbi et vraiment képp ku fa teew xam nga ne exactement xëy na la fa xew ak la fa am wuute naa ya fa doon am donc y a une amélioration bi nga xam ne am na ci artisanat secteur artisanat mu cay wax ay ñaari projet yu ci président wax le programme de formation école entreprise ak aussi le PEJA nga xam ne c'est un financement de 30 milliards yoo xamante ne il est uniquement pour les artisans donc mu nekk ay jéego yoo xamante ne tey ministère bi mu ngi koy def au niveau de de la formation professionnelle donc yaakaar naa tey ministre bi su ko initié liggéey ci wër au niveau presque international la Turquie nekk le pays invité d'honneur mu nekk loo xamante ne vraiment ku fa ci salle ba xam nga ne lii c'est organisation financé ci ay milliards def ci xaalis uniquement pour le Sénégal parce que artisanat dafa war a nekk loo xamante ne bon xee na ñu bëri ñoo ngi koy def au niveau national mais wanewuñ ko donc SIAD bi day tax une occasion permettre à ces artisans ñu wane li ñu liggéey produit xam ne purement sénégalais donc loolu moo tax initiative bi ñu wane ko ñu gis ko xam ne tey le ministère bi mu ngi jàppale secteur artisanal te ñoom artisan ñoo ko wane seen bopp xam nañ ne kontaan nañ te lii defee cette année ci des Dame Diop moom xëy na je peux dire que yàllaa ñu ko tegal fii parce que je pense que képp ku xam Dame Diop xam ne c'est un homme de terrain finale régionale bu mu fi organisé man je le nomme la finale du siècle parce que je peux dire que c'est la première fois Diourbel am finale bu mel nii réussir nii te da ciy def ay moyens pour jàppale leen les jeunes de Diourbel en plus faire raison mu regroupé l'ensemble des départements de Diourbel mu les trois départements Diourbel ak Mbacké organiser finale bu mel nii artistes invité ci ay internationaux invité ci aussi ses collègues ministres mu nekk loo xamante ni rëy la mu def ko initier ko uniquement pour béggal waa Diourbel je pense que tey loolu yaakaar naa ne képp ku teew ci final ba ak ñi ko dégg xam na ne ça c'est la première fois dans l'histoire du football de Diourbel donc ñu ciy remercier bu baax a baax ci initiative boobu ma jóge ci boobu am mu ngi def ay tournées yoo xamante ne au niveau national te loolu yaakaar ne tey bon xëy na ñëpp a ko seede tey ministre bi du noppalu dañ koo jox ministère boo xamante ne dafa bokk ci ministre gën a rëy au niveau du gouvernement mu ministre de l' emploi la formation professionnelle de l' artisanat donc yaakaar naa kooku su ko président wóolu dénk ko yaakaar naa li mu war a def mooy lii ci xar suba ngoon mu ci ñafe du toog téléphone am parce que fay à chaque fois muy liggéey pour uniquement pour avancement du Sénégal te yaakaar naa te le président sante na ko keroog ci siyaat ba remercier na ko ci acte yi muy def te yaakaar naa ñun waa Diourbel en préfération on les jeunes ñoo ko mën a jàppale pour motal liggéey bii muy liggéey parce que sumb na ko tey su nekkee en tant que des jeunes xool ko di ko seetaan dafa ñu lu ñu war te yemul foofu au côté social yaakaar naa aussi mu ngi ci def ay jéego yu am solo par rapport aux étudiants récemment la jël un appartement au niveau de Médina appartement bu bees la peut être ñëwaguñu foofu mais jël na ko ba signé nañ contrat ba pare donc yaakaar naa mu doon fay aussi facture ndox étudiants yi chaque fin de mois mu di ko jàppale étudiants yi parce que xam na ne moom jaar na fa sonn nañ il est dans l'obligation de le faire parce que moom en tant que Diourbellois yaakaar naa Diourbel moo ko ñor incha allah mu ngi ci def ay jéego donc incha allah nañu ko booloo jàppale daal euh, mënoo ñëpp ànd ak yow c'est impossible dans la vie parce que même président de la République du Sénégal tey liggéey li mu liggéey tey il y a des opposants yoo xam ne ñoo ngi ci li muy def gis nañ ko xam nañ li ngi def le concret moom aussi le ministre actuellement tey ñëpp koo bëgg ensemble mais képp ku gis un homme de valeur vertu de valeur xam nga ne le ministre muy def mu ngi liggéey même opposition bi sax tey soo laajee le ministre Dame Diop ne son travail il est discipliné il est honnête loolu si ñëpp a ko sedd amatu lii amatu le donc ñun aussi yaakaar naa ne tey li may tëjee mooy di woos mais jeunes mes frères ñi xam ne ñoom laa bokkal muy Diourbel muy feneen ñu ànd booloo doon benn parce que xam na ne sans la division tey ñu mën a sotti Diourbel tey dañoo dañ koo gëm yàgg di ko liggéeyal donc loolu mën mënuñu ko def dans la division su fekkee gis nañu en quelqu'un xam mu ngi sur la bonne voie dañu ko war a ñëw jàppale ko ànd ak moom liggéey ak moom travail pour l'intérêt de Diourbel parce que jàpp naa ne l'intérêt de Diourbel c'est monsieur Dame Diop te tey jii wane na ko mu ngi liggéey suba ak ngoon donc nañu def le tout pour appuyer ko bañ a nekk fii di xiiroo ŋaayoo nekk ci réseaux sociaux bi di saagante di waxante lu ñaaw jëru ko parce que tey antu nu xamante nañ xamante nañ fii Diourbel ñu ñëpp ñoo fi yeewu jàngandoo bokk école ensemble tey jii donc war da ñaaw bon divergence politique moo da kenn ku ne am nga ne kii laa faral mais na nga ko def dans la discipline mais jëpp naa ne ñun ku ñu xam-xam ne tey daam Diop moo ñu ñor te suba ak ngoon lépp lu mu bëgg ci bu jubee par nañ pour jàppale ko ci côté boobu je pense donc ñoo ngi lancé on appelle à tout le monde que ça soit jeune femme pas yëpp daal ñu jàppale président Macky Sall jàppale le ministre Dame Diop pour la réussite du Sénégal